si li may liggéey man promoteur immobilier la loolu mooy sama liggéey man maay def projet une famille un toit mooy logement yi nekk Tivaouane Peul ci biir Njaareem it am naa fa mébét aussi def fa projet immobilier am naa fay bureau jënd naa fa déjà quarante hectares pour def fa aussi ay logement euh, li ma leen di doyee tey ji nag mooy dafa am loo xam ni dama ko mébét mébét mi li ko sabab mooy jàppale président de la république Macky Sall musuma dugg ci politique lu jaaxal nit ñi lay doon li ma gën nit ñi gën a xamee ci àddina bépp muy Touba gi ak fépp fu sëñ Touba mooy social ci loolu la mësu dund waaye dafa am lu ma seetlu ci diggante ki ma tudd léegi muy Macky Sall loo xam ne jotuwul dara ak politique ma di ko seetlu sama diggante ak sama baay di sama sëriñ Cheikh Mountakha dama seetlu nii ba mu nekkee ministre nga xam ni xalaatagul nekk ministre mu ne xalaatagul nekk premier ministre ci la tàmboonte tàmm di saafonte ak sëriñ bi ba mu nekkee ministre ba ni mu nekkee premier ministre mu def sëriñ bi léppam mës sa def lenn wala lu xew ci sëriñ bi te ñëw fi la ma ca gën a jàpp loo xam ni maay sama seere boobu mu ngi ci opposition di laaj réew mi keroog bi mu ñëwee Poroxaan bi mu ne man mii la sëñ bi woo bi moo woo daf ne ma na ko yóbbu sa kër nga teral ko bala ngaa teral genn gan ba mu ñëwee sama kërit ab yar rek ni ko sëriñ bi waxee ci moom loolu dong la fa wone walla toog ba takkusaan loolu ma seetlu lépp loo xam ni sëñ bi bëgg na ko boobu nekk gu lii mu nekk loxoom nga ca mu def sëñ bi daanaka ba mu ñàkkee waajur ci li ma seetlu sëñ Muntaxa la def ndeyam moom la def baayam lu ma leer ndaxte seere la 63 ba léegi maa ngi ci kër gi di leen seetlu ñoom acteurs yi fi ñëw yëpp ma xoolaat tamit bi mu nekkee président de la république ba léegi amul dara loo xam ne yëg na xaaru ndigal sëñ bi di ko wax mu di ko def ci kër gi may seetlu nag di ko topp rekk ba jamono yii ginnaaw man oma lu du sëriñ bi képp ku ko jàpp ma jàpp la te naal bu sëriñ bi naal kenn jiituwu ko ci kenn jiituwu ko ci te defu ko ngir politique da koo def ngir muy sëriñam da koo def ndax lim ko def waajur bam mu gisatu waajur ba waajuram ba léegi sëñ mun taxal def waajur lu ma leer la ndaxte maa ngi ci kër gi ma toog nag ba xam ni jamono ñu toll am na lu mu bëgg muy réew mi man ne nag man lan laa ko war a fay ginnaaw sama jëmm jir rek am te lu mu yëngu mu jàppale ci mooy ma politique loolu moo sabab woote bii ma woote ma seetlu tamit ci njabootam acteur laa ci lu ma témoigné muy soxnaam benn bis lu ma marqué la Moustapha Diakhaté moom ma woo ne ma kat soxna si dafiy ñëw ziyaari sëñ bi poroxaan buy ñëwit ñëwut en tant que dafa ñëw ngir en tant que taalibe ci yoon wi la jaar moom dong ak Moustapha Silo ak Moustapha Diakhaté bi mu ñëwee sëñ bi nañ ko jaar la ci barabu maam poroxaan euh, barabu maam jaar mu ziyaare dellu nekk ci kër gi yëkkati jox sëriñ bi lim gën a sopp ci àddina muy alxuraanul karim toog yandu fa nib taalibe di yendoo kër sëriñam ba takkusaan jotee li ma xam ne woyoon sama ngunu su ndaw soosee ci poroxaan fa la jàppee fa la julli takkusaan kooku kon jox na boppam kër gi ma seetlu ba tey premier ministre am muy Mahammed Boun Abdallah Dionne politique boolewu ko ak kër gi ndax njabootam gépp njabootu sëñ Basiru la amul lu kër gi lu taalibe def ci kër gi mu ngi koy def man nag bu fekkee man gor laa te ma ku dul Seex Muntaxa te ñii fi nekk yu réew mi jox ko seen bopp waxuma sax lu mu leen di sant ñoom ñooy gëstu lépp luñ xam ni sëriñ bi bëgg na ko ñu def ko kon bu ma dee gor tey seex mun Mountakha war naa jóg jàppale ko ndax lii muy defal sama sang bii muy seex Cheikh Mountakha loolu donc mooy sababu woote bi donc waxuma la fii ci Touba waaye fépp fu ma yaakaar ni dinaa ko fa war a jàppale ci Sénégal bu dee jël avion wala saret wala woto bu soobee Cheikh Mountakha dinaa ko def lii mooy sababu waxtaan wi kon yaakaar naa ni euh, li ci des maa ngi leen di bàyyi ngeen xool du ngeen ci bëgg a xam waaye lii daal moo doon sababtu ba a gudd lii moo doon sabab euh, sama woote la ca des ma di ko xamal sama mbokk taalibe yi te bëgg ñu dalal seen xel bu baax mun Mountakha ba mu nekk Sëñ Touba yàgg na ba mu daan gis Sëñ Touba yàgg na moo ko wax ni ko demal ci barab bi bu ko wóoroon ni sëñ tubaa du ko nangu du ko yebal ci barabu sëñ tubaa bu dee ci baatin kon am na réew mi ba noppi waaye nag dama cee bëgg a waslu sama àq loolu doo nga ma ci dugal waaye bu dee réew mi moom na taalibe yi seen xel dal ab taalibe la ku gëm sëñ la Macky Sall lépp loo xam ni taalibe ngi koy def mi ngi koy def ci suuf buñ ko xamul nag kenn du ko wax ci kaw man dinaa ko wax ci kaw mu leer leen sëñ Tuubaa rek la yaakaar bu ko kenn gam-gamlee kon maa ngi leen di ñaan ñu ma bokkal sëñ tubaa ak sama mbokk citoyen Sénégal yi yëpp ku ko ci man nga def waaye ndam moom am na ko ba noppi ndaxte xam naa ki ma siqal xam naa li mu doon 1963 ba léegi maa ngi ci ronam mës ta ñaan sëñ Tuubaa lu te ñaanal na ko ba noppi waaw ni ma koy créer comme ni ma la wax rek euh, maa ngi ko tàmbalee ci ñii ma bokkal kër Cheikh Mountakha ak Touba gi nga xam ni mouvement association bi njëkk am muy FACT Foyer artistique et culturel de sama mag di kilifa à la retraite Moustapha Dieng ancien gouverneur ko ca Daaru Xuddoos man ma teewaloon fii Daaru Minam relation yooyu yëpp dinaa ko activer fii ci Touba dinaa ko active fépp foo xam ni samay mbokki taalibe nekk nañ fa ba ca sin laykan ga ma cosaanoo ak ngit ngi neew yi nga xam ne ma dëkk sama bàyyi neefan la ci ndigalu sëñ Basiru ba ci jasparaa bi fépp fu ma xam ne taalibe nekk na fa te ñu war a mën a jàppale président de pour mu am ndam dinaa ko def Euh, am naa déjà 40 hectares yi ba pare depuis 2016 am naa bureau yi ñu ngi ci HLM Route de Gossas ñoo ngi xalaat à peu près 200 logements sociaux ak à peu près 300 ak 400 logements euh, grand standing loolu mooy projet Ndiarème xam nga du ma dugg ci euh, li mu réalisé li mu réalisé Sénégal gi yëpp mun jëluma di ko ci wax parce que yéen ku ko contre ak ku ànd ak moom teg nga ci sa bët fii Touba euh, je crois que lépp lu mu fi mës lu mu fi mës a diggee def na ko maintenant ci biir politique bi aussi damay wax sama kilifa yi fekk ñu politique man damay ñëw rek jàppale leen jàppale leen may xool am ne yaakaaroon nañ am nañ fa faay. ma leen ca mënee jàppale ma jàppale leen ci ndaxte comme ni ma la waxee rek depuis 1970 benn mouvement associatif rek associatif mouvement Massam Touba FACT. fi ay archives culturelles de Touba bokk naa ci acteurs yi représenté fii sama quartier Daaru Minam donc je crois que am naa lisibilité euh, Touba ni mu tëddee loolu yàgg na donc yooyu yëpp levier yooyu yëpp yaakaar naa ne bu ma ci góorgóorloo ànd ko ñi fi toog ak sama mbokk yi nga xamante ni ci 70 ñoo àndoon ñu nekk ci biir dëkk bi ak ñi fi nekk ma fekk leen fi bu boobaa je crois que dana am liggéey bu bari boo xam ne danañ ko mën a def pour jàppale président de la République fii ci Touba ak ci Sénégal ak ci diaspora loolu moom duma ci mën a dugg lu bari parce que dama lay wax ni la man duma ma dama toog rek xool jàppale gi nga xam ni jàppale na ko sama baay mu dul Cheikh Modou Mountakha Bachir moom tax ma jóg man li may doon sama métier mooy ma xool ñoom ñooñu faay yi nga xam ni am na ci seen liggéey ma seet ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon nekkoon fii yàgg na ci mouvement associatif yi ma toog waxtaan ak acteurs yooyu ñu seet faay yi nga xamante ni moom la président am fii ba base problème am Touba ma nekk ci ginnaaw ñoo ñu fi nekk jàppale leen ci loolu waaye man du ma jël benn initiative te ànduma ko ak ñu fi nekk waaw waaye nag am naa benn lecture boo xam ni ci sama jeunesse laa ko amoon fii ci Touba parce que nawetaan fii bokk naa ci njëkko njëkk a def ak ay kilifa yoo xam ne kilifa nañ ci dëkk bi ñemeetuma leen a tudd ndax samay sëriñ lañ ñoo ko njëkk créé fii Touba Ibba Gueye nekk Mbacke Bawol ma nekk fii ak ñooñu créé mouvement jeunesse su Touba donc ñoo ñëpp dinaa toog waxtaan ak ñoom ay mag lañ seen i sët ngi seen doom ñu seet li fi manqué président de la République ñu waxtaane ko ma jàppale ñi fi nekk seen ginnaaw laay toog sëriñ bi dama mas a wax benn yoon benn na seet sama vidéo benn vidéo bu laa mas a def mosuma wax pour dul sëñ Tuubaa laa mas a wax sëñ Muntaxa képp koo xam ni nitu àddina nga cër bi la suñu borom jox dina la ko jox muy opposition muy pouvoir ay taalibe ma ci nekk fenn fu ne am na ci njaboot fenn fu ne ci ñoom am na ci njaboot ñoom ñëpp la yemale amul xàjj ak seen pouvoir ak opposition sëñ Touba la gis gisul leneen kii tamit li tax ma jàppale ko da koo jàppale ci liggéey bi muy liggéeyal sëñ Touba te dama waxoon ci vidéo boobu ne ku bëgg a dem boo bëggee am dem nan nga ko jàppale ci lii muy liggéeyal sëñ tubaa te Macky Sall bokk na ci premier yi jàppale sëñ Mountakha ci liggéeyam bi te sëñ Mountakha du ko wax moo tax ma di ko wax